¿Qué es eso? ¿Qué qué bi. ¿qué yan. el ci ¿qué bi. yére lem ko la wéri ma yére lem moom. lan ki ne am. waaw jàpp am am jamaa bi ma may la ki. ne jëlal jamaa bi ma may la. lan la Ami. Ami waaw taxawal. Seydou kay xool am kon nu muy def. li li la ni yow. ay la sabab ngay sa affaire yi affaire yi moo bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma. bàyyi ma. ko boog yaay. moo ni. eh demal toog ne yow nga def sa bopp nga bàyyi si demal toog nee waaye nga def si affaire yi eh puusal ni nga am toog ne. eh bu eh, ma teg sa loxo de puusal ni nga am toog ne. jibi nga jibi yow dama laa nopp ami kii mag la ami jibi kenn damanteeg moom ki dafa dof de man man kii ma la man damay fay de man dëkk ma ci affaire mi muy def de yow laa <laughs> yaa doo jóg ñu yóbbu kii jéeni jàppale jàppale baax kii dafa am lu mu gis yow déglu ma nañ ko yóbbu ca Kanjali Sori déglu ma rek ne kii moom dama ko yóbbu Karantamba moom kii moom dama ko bàyyi nii moom. ko yóbbu Karantamba laa ko yóbbu. yaay bàyyi sa affaire yooyu ngay wax ay Karantamba mooy lan. dama ko yóbbu Karantamba nga ca Kanjali. noonu moom Kanjali Sori lii da ko yàlla mën loo. ay Karantamba yaay du faj yooyu ba du fajee ma ko. yóbbu déglu ma man du gis nga li may def xam naa ko li may def xam naa ko li may def xam naa ko. yow sa ab yow xam nga sa yéegee kii dañ kaa war a yóbbu hôpital Fann bu ñu demee waa ji am na sama benn copain bu fa nekkoon bi muy daanu manga dafa nekkoon fii daanu ñaan manga lu ko jot manga lu ko jot mais dañ ko yóbbu ma waay kaay seeni doo jug ñu yóbbu ko yow yaay góor doo ko ñaar dëgg seeni jugul waaye jàpp ko yow kii waay yow déw ma déw ma déw ma yóbbu déw ma wuy déw ma wuy déw ma yóbbu la waxal waxal waxal waxal ma aw may rab il faut donc koor gi ma jàpp lan koor gi moo ma jàpp ak liggéey bi ma santoon mënuma ko dawuñu dara kii la seen kii na saw nii sama yaay naa leen yéen ñëpp góor gi moo saf liggéey bi ma liggéey waaye sëy na jàppal ñu ñu ñu ñu léegi mu ñëw nga santaat jàppal tànk ñu sànni ko sama fit wi. seeni gaañ la mu. xam nga mu naan seeni gaañ la waroon na laa rey. yërmande